rek aj ak ak wàcce. nii ak dugal waaye ci taatu pono bi leen wax taxaw fa. ngay jël rebond yi. dafa am lu xew nag senegal lu garaaw. Mhm. loo xam ne gannaaw waxtaan bi li muy neex neex. Mhm. faw nu bàyyi ko xel. santé wu Pape Alé Niang ak Ousmane Sonko. Mhm. Ousmane Sonko dañ doon wax crise d'asthme démb. la ilaha illallah. crise d'asthme baaxul. déedéet. Pape Alé état wu Sénégal bii fi nekk nag yéen a yor sécurité Pape Alé Niang ak Ousmane Sonko mm-hmm. détenu politique yëpp ak seen santé ak seen lépp lu leen dal yéen nu wax ko noonu bien sûr lu leen dal yéen la même bu nekkul woon seen loxo waaw ñoo yor seen ñoo yor seen sécurité ak seen santé yor seen wér-gu-yaram rawatina yor seen tout avec un grand T voilà voté budget nee nañ bu ren bii di ñëw nii toll na ci juróom-ñaari junni ci ay milliards mm-hmm. ñu ne leen suñ wér-gu-yaram suñ kaaraange suñ nangam suñ nangam suñ nangam ndox mi ci tout avec amul ay ba mu des nangam de. Mhm. amul. Mhm. suñu bakkan nag lépp fi nekk nii borom bi da koo yëkkati rek ne leen gaañaa ngi nii toppatoo leen ma sama jaam yi. c'est ba bis bu rafet ba nag jot man nag man maay jël dogal waxantuma laaj nag yow nga teg leen loxo. actuellement yaa leen di garder fañ tëdd yaa leen ko jox. Mhm. bu leen neexee sax ñu ne duñ lekk sa lekk waaye daal en tout cas moom. bu ñu gëmee bët yaa leen tiim di leen garder. Mm-hmm. ta ta bu ñu yeewoo xool. yow la yaa leen di garder. ta su ñu demee di sangu. yow la bu ñu toogee foofu noonu di waxtaan rek waxtaan kese kese kese ak seen mm-hmm. benn. koo mm-hmm. détenu yow la. ta ta ca Imaam Ndaw la waxoon ca Imaam Ndaw ventilo boobu di xuy xamaj di génne lu baax ak lu baaxul attention yéen yor sécurité ak dund ñii ci jamono bii. xool leen liggéen ngeen def état wu Sénégal xool leen li ngeen dee def. Mhm. Sénégalais yi mer nañu de mer nañu découragé nañu sonn nañu stressé nañu xool leen li ngeen dee def Pape Alé Niang Ousmane Sonko tous ces détenus politiques. Oustaz Assane Seck. nit dof. Baara Ndiaye Mbay Baara Ndiaye Cheikh Mati. Euh, Mati Sarr Niang Ami Dia hmm. Ousmane surtout Amidia. bare nanu bàyyi leen nit yi ñu ñibbi seen kër yi. may mun a jéy. mais Amidia na. may mun a jéy Amidia. may mun a jéy Amidia. waaw Amidia. Amidia man Amidia man nañ ma woo man ma dem témoigner. aywa Amidia nañu bàyyi enquêteurs yi dañoo bëgg ay info nañ ma ah, woo laaj ma explique nous kaawu Amidia lan la. ma wax ma wax leen Amidia. Amidia ban façon nit la ak fi ñu ko bëgg a boole. Mm-hmm. une femme sociale. nit ku baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax yow nit ñi dañ doon nekk fii mu ànd ak ay ñoom madame Ba waa Pastef fii fii Sam Notaire mais nit ñi ñoom ñi ngi nekk ci affaire Pastef de. Mhm. moom mi ngi naan la suñ ko dee dafa am kenn ku fa feebar yow amet boobu élection locale yi jotagul de. waaye léegi nan la ñuy def ba jàppale kooku soo ko gisee rek ne xoolal buy ñëw di la indil kaa. da lay indil kaa kaa la. kaa kaa ah, benn kaa waaw amija boo ko gisee mu indi la kaa te kaa bi mu lay indil du doomam du papam du yaayam dëkkandoom wala kenn ko de yéen de démb seen tës bi damaa jooy bay bëgg a dee amet ma ne ko ñu bari man dañuy jooy rek mu ne ma taatata mais kooku fan la dëkk mhm. waaw kooku tam mérite woon mais daf leen suivi nag yéen tamit mbaa duy jàll nii rek ngeen bàyyi dama ne woon il faut ma wax la ko mooy bu barki démb bi mhm. maanaam moom trois jours yi kon li mu tëdd yëpp moom mi ngi xalaat kooku mu ne ko yow kooku sori na de gis nga fi dëkk mu ne waaw daf maa leer ni kooku moom aduna du yàgg ba ma gis ko wala ma jot ko mais yéen yéen mën yéen mën ngeen ko comme ko wax ngeen ak moom moom ci yooyu daal lay nekk rek. ci lii lay nekk ci lii lay nekk ba ñun ñu xëy ñoo bokk koñ. xam mm-hmm. ah, man dama bien placé pour wax ci moom dañoo bokk koñ ñoo bokk benn koñ. Mm-hmm. rakam yi de ànd ak man yaayam nekkoon collègue kii. yaayam témoigné na ba sonn ci Ousmane Sonko. même Thioro bu Walfadjri démb. Euh, ngénteem bi def na ay témoignages yu rafet ci moom ba jooy jooy métti tellement que. Ami Dia nu mu mel ak nu mu doon comporté woo ci biir prison. ñu dama ni nañu ko bàyyi dafa yàgg sax nag. dafa yàgg te xoolal ku yaakaar ne dina sëqat wala mu onk wala mu caalit wala mu naan day collaborer ci lu mu gëmul. Mm-hmm. juum nga de. bu dee yooyu ñu bëgg a teg noonu rek rek rek rek rek pour daal mu wax loo xam ne sax gëmu ko ndax génn ci ma xam ne bàyyeegu leen ko mais nañ bàyyi jàmbur et ñoom bu ñuy enquête kay nañ laaj ñëpp nañ ñu laaj. non mais c'est c'est c'est nañ ah, ñu laaj nag ñoom it nag. mais mënoo téye benn nit rek tamit nag téye ko noonu rek àttewoo ko boo ko ñaataat. Amady yaayam ji nekk fii doomam yi. doomam yi surtout. keroog bi Sonko ñëwee fii man ak président Ousmane Sonko ñoo bokk benn oto ñu foog doom yi mu yéeg ba ci kaw. c'était waaw waaw ba pare paasan Sénégal tamit nag ñun xamuñ yii wala. non non c'est xam nga man lan moo ma jaaxal. te ta ta yenn saa yi damay toog di ko xalaat mu jaaxal ma dafa euh, Chérif Ahmed Aïdara. non ñii fi nekk nii yore état wu Sénégal pourtant xam nañ leen démb nekkoon nañ fi mais ñoom amuñu woon xar kanamu nit yu soxor. day dof loo waate. waaw wala dañu doon dóor. wala dañ doon nax. sénégalais yi léegi. politiciens yi leen ragal nguuru Macky gi tax na ba fi nekk nii xoolal da ngay romb sax ñu ne xoolal wuy ma gañeegul de xaaral ba mu doon meer. day soppeeku. terrain bii de dootu fi football gis nga yii nii yëpp ay baab la nii rek parce que dañ ko dund dundaat ko dund ko dundaat ko dund ko dundaat bu ñu la rombee dimanche ngay football fii sama bund ko ñoom yaay nii fer kër Penda Ndiaye ñeent fi ñuy footballee par dimanche mais gars yi dañuy romb di def def ba gars la sa moom la dem amee ay dara hmm. dañuy gëstu ba yegg ci jumaa murit yi est-ce que moom la est-ce que moom ndax li ñu politiciens yi tàmmal mais ni ñoo xam ne mosuñu am kanam kanamu ko soxor au contraire ndeysaan Macky ni mu ko yërëmee moom dañuy selaw Abdoulaye Wade na bàyyi doomu jàmbur ji moom it kenn mosu koo dégg mu wax sax mu mhm. ñaaw. tout le monde l'a défendu mais mais mais Ahmed Aïdara Pape Alé Niang bii man jàpp naa ne su ma nekkoon Macky Sall dinaa ruus di toog ci réew bu ma jiitee ñuy jàpp Pape Alé nii. pour plusieurs raisons ci principe ak ñenn ñi nga xam ne ñu ngi koy wër nekk ak Pape Alé ci presse bi nekk ci wetu président Macky Sall mais bu fekkee da nga nekk ak nit te décision yu baaxul bu kaa jël mënoo ci dara wala ragal nga ka wax là c'est un problème. Pape Alé Niang da ngaa mës a gis moom ligne éditoriale am changé. mokk ñun de ci affaire lañ ko fekk bañ ko ci xamee ba léegi nii nii la def ci fukki at ak ñaaru Ablaye Wade ba mu jeex. Mm-hmm. Macky Sall ñëw. te pourtant dañ ko doon tuumaal ne moom dafa contre Ablaye Wade opposition bi moo ne ci ginnaawam. gars yi ne nekk ci ah, opposition bi ne ci ginnaawam eh, xaaral ba ñi ba ñiy toog ba xam nga Macky moom day dem moom jarul moom. yàlla dem moom moom dem na moom. alhamdulilah rabbil alamin léegi dat rek la ñuy xaar moom mu joxe bagages yi day toog ak day dem kooku moom sama yoon newu ci léegi bu yàlla dogalee moom ki koy wutu ñëw bokk ci opposition bi bokk yeewi ci boppam laa la wax. suñu yàlla defalulee sutura Pa Assane mii dinañ ko ne soppil waaw mm-hmm. parce que ñoom li ñuy xaar politiciens li ñuy xaar ci Pa Assane mooy dañ koy dégg nii muy wax de waaw mu naan non sa waay il est avec nous c'est ñu bëgg ah oui il nous soutient fekk moom soutenir la principe ak dëkk bi moom principe ak dëkk bi lay ah, soutenir le pays et non yow c'est bu ko defee boo ñëwee bëgg a jalgati di def comme li Macky saal doon def Pa Assane moom mosul wàcc ligne éditoriale am de foofu la toog ba tey nga commencé di ko woo. ma may la eh, ma may la mais kii. pour dëgg wax ma may la eh. mais lu eh, ma may la ma may la ma la état d'esprit bi acteur politique yi toll te mu dangereux malheureusement sunu football bi. Mhm. kilifa nee na ma mais yow man mosuma woon xam ni quand même yaa ngi ñuy jàppale ah ma ne ko ci lan ndax lan Baye Assane dafa bëgg football bëgg équipe nationale.